ko ba léegi ñëw ñun ci dañu dañoo plainte Ousmane Sonko ca section de recherche. Hmm, ñu ñu koy toppee. Yacine lu doy waar. liñ ko Ousmane Sonko dañ ko accusé de gi mu jëlaat yi tax de. waaw lii kànja gi nag julaar yi tax nag. tax ban sax. en Sarr. mooy plaignante. Hmm. nee na Ousmane Sonko day ñëw en qualité de client. Mhm. saalu massage la xam naa xam nga gars yi sonnee moom dañuy mel ni mën suur Diop dañuy defaru <laughs> dégg waaye bu jeexee daal. Sonko nag day sàkku neen lu ci bokkul maanaam di sëy ak moom. Hmm? dégg nga gone gi nag nee na dafa mujj dafa mujj sonn ci viol tey viol suba. viol ginnaaw suba viol ginnaaw suba. yaramam ak yaramam ak lépp nangootu ko. doy na waat xale bu jigéen bi nag déglu nañ déglu nañ ko démb section de recherche patronam ki moom Sall déglu nañ ko gone gi ci boppam yóbbu nañ ko ci ab spécialiste pour prélèvement la version de Sonko lan la Sonko nee na. musul jot benn plainte. benn benn. dégg du ci moom directement. Mhm. du ci huissier du ci assignation du ci signification. Mhm. est-ce que nekkoon ne kon ñoo ko informé. Mhm. su fekkee dëgg la. man xare. yéeme na de. li ñu war a jàngal mooy saal massage yooyu. waaw. war nañ cee def. saalu massage ah. ah saalu ñuy defee massage. waaw saalu massage fa la lépp di xewee. dafa am dafa am dafa am yu professionnel. am yu nga xamante ni. Ah, loolu de am na ça dépend ci bari. dañuy naan massage ça dépend ci massage bi nga bëgg. dina dem ci saalu saalu massage amaat. ah. <laughs> yenn massage yi day. saalu massage. waaw saalu massage saalu massage moom nit mën na faa def yooyu. massage waaw saalu massage saalu massage moom nit mën na faa def yooyu. ah saalu ah! massage. viol la wax bu dee bu dee viol. Mouhamed non. dañuy poussé ma sa téléphone. mën nañu wax viol bu dee da nga doon waxtaan bu jubóo laa wax. Ah. mais bu dee jubóowu leen viol mën na fa ah. moo waxtaan ba jubóo moom fu mu am viol am fa <laughs> waaw waxtaan ba jubóo fu mu am viol am fa. est-ce que c'est pas pour créer polémique rek tamit madame Karité la. yéen ñii parfois dañ koy polémique. xam nga si diggante jëkkër ak jabar sax parfois ñu ne viol mën na fa am. waaw la Sénégal gis nga. Euh, Séné. waaw Séné yow bu leen topp. Mm-hmm. Vox Populi ñëwoon ñun ci Coumba Gawlo baat bi nag moo xaw a am jafe-jafe. mu ajalee gum sa carrière musicale. dégg nga loolu Cheikh Oumar Anne naka ngi nii ngénte tubaab moom mënul continuer étudiants di lekk te duñ fay Cheikh nee mun da continuer. yaakaar ñoo ko bëgg. ah étudiants yi. ah tiya ngénte <laughs> jël yaas. ah yaas. <laughs> comprends nga ah. oui ma non damay calme di la suivre di la déglu mais religieusement mais Ahmed s'il te plaît ah. le témoin yéen a kaay ñëw waaye yow mos ngaa gis ni policiers yi ak gendarme ñi nga xam ne ñu ngay xeex ca buntu kër Idrissa Seck. ñu bokkante. waaw wala la ñuy xeex nag. policiers yi ñoo jékki ñoo fa ne. gendarme yi ñëw policiers yi après dem ñibbi. léegi ñuy laajte ba xam moom Sow mii est-ce que nekkul ne mburoo mujj arbitré. Mm. kenn xamul lii lan la. gendarme yi ñoo nekkoon ci mimi. est-ce que nekkul ne bi mu demee ci institution bi kon gendarme yi ñoo war a ñëw wat en tout cas daal ni ngi nii di xëccoo ndaamal Kajoor dégg nga déedéet ñun fi mu ak fi réew mi toll moom vraiment talaguñu espoir xaaral dimbali ñu rek dernière ligne droite daal audit officiel waaja am na ku dem am na keneen koo xam ne ñëw na dégg source a ñëw ñun ci marché euh, euh, Sandaga version yu bëri la autorité yi joxe waa état bi bi ñu dem assemblée nationale dañu ne ñu génne juróomi milliards pour defar marché Sandaga Ziguinchor syndicat bu Pikine ak Njaareem tey ñu xëy ministre commerce xamal ne waa source a ne leen e, kii Dakar Plateau ñooy mujj ñoom ñooy mujj seere nag léegi marché bi ndogaan ay mbir moom doy na wax Macky dégg waaw Macky kon dafa ay recette moom ah bu Davos kon moom am na recette. ñun de dañ ko moo la solal baax yaay couture. baax yaay couture baax yaay. jaay daa mais de laa booy man ay produits koor laay laal réew waaye solo costume mu mel ni moo solo costume mu mel ni xamtaan. Hmm? réew ko quotidien ñëw ak ñun ci cours yi nag si. am na ay coppite. waaw tout à fait. te ca cours du soir yi moom aj nañ ko huit heures quatorze heures. Hmm. mardi jeudi dégg nga loolu. Hmm. jaari moom comme que gars yi jaari bu ci kenn waxati. bon jaari moom jaari moom. ñoo ko ko ñaan sax. waaw jaari moom nañu nañu dimbali rek. nañu muñal quoi. loolu continuer ñëw ak ñun ci. armée ba moom fi mu nekk nii sa Casamance moom ña jël gagné nañ. waaw daa base base yu bëree yu bànn armée yi amoon yëpp ñu ngi nii en roue libre. soldat sax dégg nga loolu. l'observateur ñëw ak ñun ci waxtaan wu rëy la seqal professeur Souleymane Bassirou Diagne mi ngi nii. lii lii xamoon nañ ne dana yënguwaat de. mille trente six kilos yii justice bi dana yënguwaat drogue boobu ñu fi jàppoon. gars yi génnee communiqué ne tant de kilos la. 48 heures après ñu génnaat beneen communiqué ne tant de kilos te ñu ne drogue bi daa manqué. diggante bi fan la fi war a dugg. moo jar a laaj. ah. fa xul ba nu. Ah! les écoles yéen kaay ñëw ñun ci wàllum démocratie bi deux mille vingt classement la de dëkk yi ëpp démocratie ci deux mille vingt Sénégal moom dellu ginnaaw la def démocratie bu bon ànd ak dictature. kon ñu ngi dund dictature fii. waaw waaw fan. loolu.